Euh, du tere suñu chronique du jour Mamadou Sy Albert signé na ko ndax moom jot na mun a Ndour fay gannaaw ba yëf yi amee waaye am na kàddu yi nga xamante ni soxna si dénk nag ko. ci benn waxtaan bu nu séq moom baat yii daal la ma daal di dénk moom MNF président directrice générale bu 7TV ci tàmbale weerum février 2024 maanaam il faut que ñu xeex. ci diggante waxtaan woowe wala sax ca lan mën ca jànge ci jamono ju nga xam ne daanaka Sénégal situation ma ngay wulee ñaay ndax gis na ne ma nga daal di basculer ci ndëgg sërëx ak crise institutionnelle bu nga xam ne la ñuy yor yaatu na ak wàllum gaawaay bi nga xam ne war nañu sauver suñu démocratie bii xeex moom mënta ñàkk ci message boobee nga xam ne kat mu ngi daal di tukkee ci ab journaliste bu jigéen daanaka ay at a mu ci liggéey loole dafa nekk ab woote bu nga xam ne lu baax la maanaam militante boo xam ne dafay aar yiir li nga xam ne mooy àq ak yelleefu doomu aadama message bi lan ca mën a jàngee mooy teew na kat ñu daal di défendre li nga xam ne mooy kenn république ak la nga xam ne mooy ëllëgu askan wi. ay génération intellectuelle ak i borom xam-xam ay acteurs ñoo xam ne ci at mu jot daal ñoom saa ne seen liggéey ma gën a ñoŋ message bi lees mën a jàpp ci loolee daal mooy ne kat jamono ji tar na métti na kon tamit foog nga daal di xeex jàmmardoog waaye tamit daal di gëm li nga xam ne moom nga gëm bu ko defee nga wet ñëpp waaye itam MNF di Maïmouna Ndour Faye xeex bi da ko yàgg amal ci carrière professionnelle am ca ba mu tàmbalee nekk journaliste ba léegi te lii sax dina ko wéy di ko xeexa waaye tamit ba ci giir dundam te mën naa ci kitaab bu ne saa su ne ma ngi wane rigueur ak li nga xam ne wàllum liberté ci liggéey bi nga xam ne mi ngi koy daal di def ak lépp lu nga xam ne bokk na ci réunion de rédactions yi nga xam ne moo am ci 7TV ngir rek entreprise bi gën a dox jëf yuqu njuur gi maanaam agression bi nga xam ne kenn xamul ko ko def ñaaw na tar na mett na bon na te ca dëgg-dëgg MNF dafa mel ni kat ñu bëri dañ ko bëggoon rek fekk faata bëgg rek moo daal di not ba faw te loolee war na ne jigéen gu mën góor la te saa su ne dana jaajuwaat taxaw temm defante waaye tamit nekk guerrière xeexkat piir ci wàllum démocratie ak justice sociale la yéen yëpp ak képp kuy taskat xibaar acteur politique ñu bokk ci société bi ak ñu ko xam xamul ñoom ñëpp ñu ngi daal di tàllan seen loxo di massaw li nga xam ne moo ko dal waaw MNF foog ñu daal di xeex kon état de droit du am république du am liberté du am kon nit ci baat yi dama laa di fësal sama ñàppandal ci jamono ji nga xam ne la ngay traversé métti na waaye kat maa ngi lay ñaanal lii nga xam ne mooy wér gu yaram teneen ak jàmm delluwaat sa kër delluwaat ci seeni ñooñ amen